merci ma ma mun ci indi ñaar yi li ma sama xalaat bu gàtt rek quoi. Mm. Euh, PDS je pense booy wax PDS da nga koy da nga koy euh, da nga koy situer ci li def essence su PDS. Mm-hmm. li def euh, li ADN u PDS. Euh, je pense PDS 74 le président et frère secretaire général national Ablaye Wade créé mm-hmm. mu gën a ràññeeku ci li nga xam ne nii mooy défense des droits et libertés. Mm-hmm. Euh, defe naa ni xeexu PDS yëpp bi mu nekk ci kujje gi ak pouvoir tey bu ñu ko bu ko ràññee dayoom mu am dayoo defe naa ci li mu lal xeexam ci wàllum droit liberté bëri na liberté yu bari tey yi nga xam ne ñoo ngi suñu suñu constitution ñun ñoo ko ci ñoo ko ci ñoo ko constitutionnaliser ay droits yu bëri ak ay liberté yu bëri ñun noo ko constitutionnaliser loolu yëpp nag njeexital bi rek mooy gën a suuxat suñu démocratie euh, gën a dëgëral suñu état de droit euh, gën a fexe ba euh, sénégalais yi nga xam ne ñoo leen di jiite ñu mën a tontu ci seen i aspiration mm-hmm. donc ñun loolu la ñuy doxee yor réew mi fukki at ak ñaar ñàkk ko defe naa ni tey lii du lu bees c'est pas la première fois que ñu wax ci réew mi tijji commission d'enquête mm-hmm. du lu bees ñaareel bi mooy Euh, conseil constitutionnel la euh, du guleet dem ay nit yëkkati ay tuuma euh, am na sax ñu leen fi wax lu ne ci réew mi ci acteur politique ak mais mosoo fi dégg réaction sax conseil constitutionnel ñu li ñu bëgg rek mooy lenn dañu am candidat mu tudd Karim Wade muy liberté parti bi ñu def ko candidat depuis 2019 mm. bi ñu ko defee candidat umpuliwul kenn benn sénégalais Euh, que ni dañ ko jaay doole dañ am acharnement ci moom tey ñu ànd ak ñun ak ñi àndalul ñu ñëpp ñoom ñëpp Sénégal yëpp dañ d'accord ci ne ay tuuma yu teguwul fenn ak acharnement usage de la puissance publique euh, moo tegu ci kawam fukki at ak ñaar mu tëdd ci kaso ñetti at lu kenn mësul def à part du jaa ci histoire politique bu Sénégal tëdd ci ñetti at ñu exilé ko donte loolu yëpp jafe-jafe la PDS gëm ni parti bi patrimoine la bu ñu war a sàmm bu ñu war a pérenniser. Mhm. taxaw ci loolu nekk ci. Euh, ñu dem 2019 ñu xañ ñu ci lan bokkul ci liste électorale parce que ñëpp gis nañ ne dem na bindu waane dañu jël loi moom la ñu gouverner réew mi di ci doxali élection di ci sàcc élection di ci gagner élection. Mhm. c'est la loi qui fait l'élection. Mhm. donc 2019 bi ñu ko xañee mu metti ñu muñ toog continuer suñu xeex parce que dañu am projet pour Sénégal ñu ñëw 2024 2024 defe naa baax na sax ma fekk fi honorable député parce que nit day baax looy wax nga teg ko fi ci firnde yu wér euh, conseil constitutionnel ab juridiction bu ñu jël am pàcc yu ñu ko jox ak liggéey buñ ko sas ci réew mi mu nekk juge constitutionnel nekk juge électoral euh, constitution réew mi moo wax ku bëgg a bokk nekk candidat ci réew mi da ngay dem nga tontu ci li ñuy def comme condition bokk na ci ñu ne na nga am nationalité exclusive loolu histoire la moo exclusivité boobu dañu war a dafa baax nit ñi dem ci loi ba ko sos dugal ko ci constitution bi ñu xool exposé des motifs pour xam lu indi exclusivité boobu mhm. mais constitution constitutionnelle ñëw ñun ñu yóbbu suñuy kayit jox ko jox ko lépp lu nga xam ne nii tey exigence la ak condition pour Karim Wade mën a bokk ci combat bi mu ne ñun duñu bokk ci lan parce que Karim Wade nationalité française am daanaka renoncé wu ci ci délai bii wala délai bële ñu jàpp ne ñun conseil constitutionnel kenn laaju ko ban délai wala yoonam nekkul ci ban waxtu la Karim Wade renoncé wala ñàkk renoncé nationalité xam nga lu ñu ko laaj juste mu constaté ne kii ñu indi ne amul benn nationalité nationalité exclusive mu constaté ko te décret bi ñu ko jox rek dafa doy kii mu ngi toog parce que binduñ fenn ci constitution réew mi euh, ne conseil constitutionnel dafa am maxaama wala am prérogative inventer le droit à la loi ci le parlement muy muy defar loi hmm. conseil constitutionnel non day dàq Karim ci affaire nationalité ay délai te mu ngi yor décret mais dàq bi fi mu ko teg moom la kenn moo mënul nangu loolu ñu teg ko ci d'abord jurisprudence française bàyyi loi et règlement wu réew mi te yoon constitution moo wax sénégalais yëpp dañu justiciable devant seen loi te seen loi mooy appliqué wu ci ñoom pour rek ñi gën a ba basique comprendre li indi coow li nga gëstu loolu gis rëq-rëq yi nekk ci décision conseil constitutionnel bi yëpp ñun nag PDS am nañu sañ-sañ taxaw ne lii du jaaru yoon am nañu sañ-sañ dem la bëj xool lu waral ñu mooy yoon ba ñu cee génnee